kuréel bii di comité des femmes leaders pour la paix la démocratie le respect des institutions et l'état de droit fësal Ndialam, gannaaw ñi faatu ci fitna yi xewoon ci réew mi ci seen jàkkaarloog taskatu xibaar nañu itam Nakar biñ ci am ñun ñii ñoo war a jaale suñu bopp ndax li ñu dal nation bi la dal dëkk bi la dal réew mi la dal kon ñi ngi waat ñëpp di wax ne li ñu dal metti na te ñaan nañ yàlla yàlla bu mu amati ci réew di ñaanal ñi nga xam ne jële nañ ci ay gaañu gaañu yàlla fëgg seen bopp ñu dellu ci seeni famille dellu ci seen liggéey ñi nga xam ne itam yàqal nañ leen seeni alal ñu ngi leen di ñaanal yàlla ñu am xol buñ ko muñee te di ñaan nag ñëpp jàpp ci dimbale leen ndax ñu mën a delluwaat ci seen liggéey yooyu kërum particulier yi nit nit yor sa kër ñu fekk la sa kër toj sa kër lakk ko loolu metti na metti na torop metti na fu metti yem kenn mënul xam loolu lan la kenn xamul la tax lii dal suñu réew réew boo xam ne àddina bi yépp dañ ko nawoon ndax démocratie am maire bu ndakaaru bokk ci kuréel gi sàkku na si ñu ngànk wàllum yoon ci réew mi ñu jéggal ndaw yi ñu teg loxo gannaaw manifestation yi bëgg seen réew am patriotisme moo leen tax ñuy défendre démocratie bi ci point bi ñu koy défendre kon nañu ak suñu njaboot nañu wax ak ñoom nañu leen di déglu nañuy waxtaan ak ñoom ma leen di wax nag euh, violence moom amul njëriñ parce que li ñu toj yëpp ñoom ñoo koy defaraat ñoom ñooy liggéeyaat pour seen réew pour loolu ñu yàqoon ñu fexe ba defaraat te loolu metti na ah, metti na torop kon damay wax état nañ ñëw jàppale ñun tam ci apaisement bi ci seddal yëpp na lépp dal état bi il faut mu am hauteur dépassement te def na ko sax li may ñaan itam mooy autorité judiciaire yi nañ ñu dañ leen di ñaan rekk dañ leen di ñaan vraiment ñu seet nu ñuy oyofalee yëf yi nu ñuy ñuy dimbale ci loolu laata njeextalu ndaje bi ñoom ñi ëmb kuréel gi xamle nañ ni képp kuy dox ci jàmm ubbil nañu la seeni bunt pàcc-pàcc yi nekk ci suñu biir réew muy Sénégal kenn ku nekk ca wàll ba nga mënee yaa ngi taxaw di dox di wax ngir jàmm mën a ñëw fii am fii ci suñu biir réew ndax ñu mën a préserver li ñuy wax stabilité bi mooy dal bi nga xam ne buñ ko amul am leneen dina mais surtout cohésion sociale bi nga ne nañ ne Sénégal benn la mënu ko ku fas yéene mën ñëw jàpp ci ak dal ak démocratie ak euh, renforcement des institutions et respect de l'état de droit ñi ngi lay tàllal loxo ngir ñu àndandoor mën a dox loolu ñun ñëpp. gannaaw bi ñu amalee ab réunion. ci bésu wi mars bi ñu weesu. ci la kuréel gi. fas yéene jàkkaarloog taskatu xibaar yi. ngir fësal seen bëgg-bëgg. tey dox ay jéego ngir dal dellu si ci réew mi.